at bi baa ngi wax ak ñoom li lamb bañ ak li lamb nangu Gaston production consulté na ay juge am consulté na ay juge am laaj na Boy Jaxaw laaj na Dour Sané at bi sifflé na mbokk yi Dour Sané ndeysaan troisième journée six points Boy Jaxaw zéro point duge Thiès mi ngi diree Poko Cobra mi ngi diree longue distance ñi ngi lewtoo Boy Diakhao ñi ngi lewtoo Boy Diakhao Doudou Sané Boy Diakhao Doudou Sané lewtoo ñi ngi lewtoo Boy Diakhao Doudou Sané ñi ngi def ay déplacement moom moom Boy Jaxaaw poids lourd la c'est normal Boy Jaxaaw Doudou Sané ñu ngi leetoo Boy Diakhao Doudou Sané ñi ngi lewtoo ñi ngi lewtoo bul bee Diakhao Doudou Sané Doudou eh. Sané lewto ñu ngi lewto ñoom ñaar Boy Sané eh. ah en ñi ngi Malick Ngom surveillé waat na Boy Jaxaw Doudou Sané Kalaf Koulbé Doudou Sané 6 points Boy Jaxaw 0 point Gaston production di ko ñaanal mooy Gaston yàlla ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana fi raw si Boy Jaxaw Boy Diakhao Doudou Sané sib na waat na da ngay dem avertissement Boy Diakhao am na de avertissement Boy Diakhao Doudou Sané Boy Diakhao bu damay moom Boy Jaxaw Doudou Sané Boy Jaxaw Doudou Boy Diakhao Doudou Sané Boy Diakhao Doudou Sané Boy Diakhao Boy Diakha bu Doudou Sané Boy Diakha Doudou Sané Boy Diakha wa joxaa Doudou Sané ñu ngi lewtoo beneen avertissement ah booy joxaa war na koo mën a jàppee nii ba mu jeex de wóor na yàlla mën na koo jàppee nii ba mu jeex wax na dëgg nag zéro point nga nar koo yóbbee ba Thiès ah nan la ñu waxante dëgg bi ah Babacar ah waa léegi bii moo gën. Doudou Sané nga doxaat ci am na deux avertissement moom booy joxaw ah Doudou bu nii set sept point la ma mën naa def nii rek moom booy joxaw na ko jàppoo nii rek na ko jàppoo nii ah Boy Diakhao Doudou Sané Boy Diakhao Doudou Sané ah ah waay ba door mu daanu du am mi koy door une deux trois ay waay ba door mu daanu du am Doudou Sané Boy Jaxaw takk na ko lay la xëy na laa Doudou Sané daan na ko lay la daan na ko ba toog daan na ko ba toog ci kawam moom Doudou oh, doole jeexul jàmm Boy Jaxaw trois combats ci calaf bi ndeysaan zéro point mais démérite woo Boy Jaxaw demal nga liggéeyu waat Doudou Sané am na neuf femmes Doudou Sané Boy Jaxaw takk na ko lay daan na Layla xëy na la oh daan ko ba toog ci kawam daan ko ba toog ci kawam moom Doudou Sané oh doole jeexul jàmm booy jaxaaw trois combats ci calaf bi ndeysaan zéro point mais mi démérite woo booy jaxaaw damal nga liggéeyuwaat Doudou Sané am na neuf points Doudou Sané ndeysaan qualifié na moom final moom mooy Doudou Sané incha allah le 28 ma dee ci door. maam góor gi Ndiaye sëtub maram Dieng. bàyyi maam madame Ndiaye réew maa ngi may soow. te ku réew mi soow booba da siiw. bàyyi ndey ak sa Ndiaye maa yàgg ci coow.